foto tonton bi mu solee costume bi. nee dindil bi mu daan def mu ñuy tuuti. li ñu niroo costume ñoom ñaar. waaw moom buggaan ngee dani. dégg bàyyil ba bàyyil ba mu ñëw surtout yàqati leen dégg nee na moom mm-hmm. war na gisul magal gi. gis nga xalif bi. Mm-hmm. dogal bi nga xam ne la jël ak nguur gi. sëñ bi yegg na leen ko ba pare. ñoom am nañ ko ba pare. ah yàgg na ñoo xamagul. waaye Y'en a marre nag danañu yóbbu police ci kanamu tribunal. police mel na mi la ñu ah, yóbbu da koy porter plainte kay. niñ leen tax a taxatee moo doy waar. dégg loolu monsieur le maire. ak ñoo ci nañu. Mhm. président Macky Sall dafa teg benn programme. le programme euh, décennal la. 2012 2022 10 ans pour jëlee fii mbirum inondation yi. 10 ans. waaye gis lu tolloog juróom ñaari téeméer ak juróom fukk ci ay milliards. Mhm. ndox mi wan naa sonn ko. sept cent cinquante milliards. Mm, mm, mën na. yàgg na waaye ma ne yooyu ñaari at a des mais dëkk bi tey la gën a inondé ndox maa ngay buuj fu ne fu ne. fu ne fu ne léegi nag journal bi nii mais où donc passé l'argent li Fabrice naan ana xaalis bi ana xaalis bi. Ah, waay waay waay. lii lii lii tam la kenn xamul la la. doy na waar de. xaalis bi anamu. moom la ñëpp ah, di laaj. mi ngi nii de ñi ànd ak Macky Sall daal nee nañ leen bisimilah. c'est-à-dire. carte blanche. def leen leen neex. chef de l'opposition. ba kenn laal leen. ba kenn laal leen. dégg. suuf mhm. sa am monsieur le maire ñun ci. soxna si bokk benn bokk yaakaar. Mhm. te ñu ne jëkkëram moo yegg ci gone gi am fukki at ak ñaar. ci toll tës boobu procureur dugg na ca. pour la procureur dugg na ca procureur dugg na ca. y a de procureur dugg na ca. procureur dugg na ci. jar na ko nag. procureur dugg na ci. Hmm. le quotidien yi hmm. bi nee na Aly Ngouille dey lii ñuy ngawti ngawtee daal ak di ko ëf. Hmm. <laughs> ajum élection la de. ajati <laughs> ñi nag Secka da leen way sekaa Secka way na leen nag ajal ajal. mais est-ce que amul soowul Secka bi. ajal ajal loo aj na nga xeeb. waaw waa ñi Secka way na leen waaye. non ñi xaaral. wala xanaa ñoom seen sonnerie portable yëpp ay ajal ajal moo ci war a nekk. de bu Secka non non non sax c'est que il faut que MD génneel ñu ajal ajal. ajal ajal gi. parce que ñii moom ñii dama foog ne école. <laughs> naam faal waaw kay kay kay kay naam faal kay kay nii sama wet. kay kay sonn faal. naam faal kay sama wet. sonn faal kay kay parce que Macky ak waa këram ñii li ñuy aj ñii bis bu ñu ajjee. sonn faal ajal ajal mi ci réew mi ajal ajal mi ci réew mi nag sonn faal doo ci wax. sonn faal. élection yi. ñii di aj di aj bañ ne duñu ajji lan la. <laughs> waa ñii xanaa ñii xanaa soow soow seka bi ñoo ko moom. daa ni sunu reportage lañ ko def. loo aj ko xeeb. waaw ajal ajal. loo aj na ko xeeb. ko ñoom xeebu lu ñu aj. xeebuñu lu ñu aj. waa ñii li ah, <laughs> <laughs> ñuy seen nii muy ñëw te gisuñu ko. waaw muy raam nii. waaw. ah. gisuma ko te gisuñu ko nag wax dëgg yàlla gisuñu ko. yee soxna bu dugg ci xoolal soxna ñii. soxna boo justifié. man man man man tey maa jàpp samay sër man aj. <laughs> waaw nee na tey ma aj tey nga lan. aj ko fii. <laughs> nga ah, ajal ajal bi kay xanaa. soo ko fàttali ñu ne la maa ngi ajal nee na loo aj na xeeb. waa yow waa waaw Macky wa waaye ñii moom. kaay ma ko bu ma ko lëkk. man man man man daal man daal dinaa dee dinaa dee rek. <laughs> non ñun dañuy mujj toxu. ñun. ah yow gis nga maa ngi koy dégg de. kaayoon ma ko ma ko ajal ajal gi. da ngay wax rek. ku génn la lu ma ba. ah sëñ bi. ala <laughs> mag bi génn na ajal ja. ala kilifa diine. kaaw. <laughs> daw tës. araaj bi waaw waaw mii waaw ñii sa dédicace la bu ñu leen di may ci suba gi rek yàq ko dara yàq ko de. <laughs> non xaaral man ma ko quoi. seen <laughs> TV l'officiel ñoom sax ñu ngi aj. bañ a aj. ajal ajal bi daal ñuy wax nii muy na. mi ngi nii nag. dialogue bi daal boo bëggee dégg dëgg. xoolal uh-huh. mi ngi nii juróom-ñaari président de commission yoo xam ne dañ na pat. Uh-huh. gis nga dialogue bii boo bëggee dégg dëgg. dëbb la dëbb. dëbb mel ni. waaye yow bëlëf la. kay ay dóor. libé ah kay libération ñoo ngi ci aw Diouf. Awa Diouf monsieur le li mu def ëpp na. Awa Diouf lu mu ci ah moo rey doomam ci. Mariama te mu am juróom benn weer te mu noonu lor. waaw. ñëw na kër ah ok. Hmm? doom ji xaw ma dafa dañ koo maye waaye. ëmbam juróom benn weer yi te sëyam bi amagul sax ñetti weer. ah loolu moo ko métti. njortu ne kon xam naa dafa. nañ ko waxtaanee rek affaire famille tamit kootu biir la. jarul rey rey lu mën a xew rey moom du raison. Mhm. léegi su ko yéene kaa ñëw ak ñun ci coowal bati police. Mhm. Rachel la ngi nii de. Sëlay la. moo nekk ne. dañ koo wër ndoom ma di kii dégg ñii ànd ak Idrissa Seck ñii ànd ak Macky Sall moom Idrissa lañ ne nañ ko def chef de l' opposition. Idrissa Seck. opposition bi nag ne déedéet. Hmm. société civile bi ne kaay leen wax. ndax mënta nekk Idi. société civile bi d' accord uñ de. parce que dañ ne bu nekk génn ci élection présidentielle yi jël deuxième moom lañ def chef de l' waa léegi buñ dawalee ñeenti weer. tëgg hmm. ay député. waa waa ndax dañ koy bàyyi mu ko nee nekk chef de élection locale yi ñëw waa am ñu ko raw waaw ndax day ko ne nekk ah déedéet déedéet nag mm, mm, mm, day soppeeku moo tax ñëpp a ca classement bi day soppeeku non na li ak opposition bi nee nañ leen seen statut chef de l' opposition ngi noonu kii doxalal ñu bàyyi ko mu dox. waaw waaw waaw enveloppe bee diis nag de monsieur le enveloppe bi dafa diis de <laughs> ah tamit deux jàpp trois milliards ah! si chef de l' opposition. waaw man maa xëpp Assane ci réew mi ñu woo ma jox ko chef de l' opposition. man daal barki yonent bi. te xam naa ne boo boo nekkee chef de l' ma jot. ñu doon matinal ñu jot waaw waaw chef de la xeex. xeex defan ngeen ñëwaat de may chef de l' opposition <laughs> waaw léegi foofu ñaata lay joxe. c'est na jël nañ ko yéen doo leen jëlee ci <laughs> yéen fu nekk fayee ko bor ngeen toll. corona ñu jël mbën na ñu jël. Hmm. pétrole ñu jël. gaz ñu jël. Hmm. am lu fa desati loolu leen jëlati la suuf sax. déggal kii naan. ah filaawu. filaawu. arméria. <laughs> non géejewaare dañoo bëri bëri. déggal kii naan kollu ngeen jël. ey <laughs> la seeni kaay ñoo ñu ci xoolal euh, euh, mu ci suuf si arnago kese. dégg nga exclusive yéen kaay ñëw ci. gis nga maître mu Diop gars yi duñ ko teel a wàcce. Hmm. Eh, duñ ko wàcce de. gars yi kii xamal lañ bëgg jekkale ko. jekkale ko nii koy jekkale de évidence yéen kaay ñëw ak ñun ci mhm. inondation d'incompétence yaa ngi nii ay gox yoo xam ni Kaolack Saint-Louis Guédiawaye Ziguinchor Pikine te koo ci gis nag ci maire yi ñu la tuddal yëpp ministre lay doon wala ab punkal maa la ko wax ñoom ñëpp ci Kaolack ne ndaataatalax te seen gox yaa ngi bënn ba maara di taali nii nii nii waaw Mariama Sarr Mansour Faye Aliou Gaz Ablaye Balde Ablaye Timbo ñëpp seen ko ñaa ngi fees del del del presse bi sonn nañ de hmm. corona gi jekkali na leen en ah, presse bi ah perte nañ quatre milliards chiffre d'affaires yoo xam ne wàcc na ba soixante milliards mais weer wi kay ku fayee santal borom bi santal yaa ngi nii waa subatel rës daanu ba moo cinquante quatre pour cent sukuraat rajo yaa ngi nii hmm. kii moom ñin la moom ak presse en ligne beeg imprimerie yi daanu quarante cinq pour cent <laughs> waaye yow rajo kay boo ñu dimbaliwul du la case de maa la wax loolu de jéemati faal nag. waaw digganteem ak yaa xam bay neexatu. Ah. solo ya ngay toj. ndaw si daal en tout cas sonal nañ ko fa génn xeetu sonal koo xam ne ëpp na. waaw. waa Simpeg si naqaru nañ ko. Mm-hmm. ba ni solo ak APS. APS. nee mooy ñaari madame Diop yooyu. waaw waaw. di leen li dàq leen illégalement. te léegi noonu lañ ci tool ah, ah. ma ki Sall nag pataas bu tàng ba pataas bu tàng baa nga ca loxoom léegi. tàng na mos. l' opposition. léegi nag xam naa ne. tànn naa sama chef de l' opposition. waaye ma ne kii lii nekkul pataas bu tàng tànn na bu yàgg. nan la kii jox na ko Idi. <laughs> direct news yow ak ñun si gis nga dil bii dox ci diggante Madani Tall ak Karim Fofana nag. Mm-hmm. moom la journal bi samp. gis nga experts ministériels yi nekk ci jam ñaajo jam ñaajo ba. entreprise bii di envol. gagné marché te amul sa expérience tabax. loolu. laaj ma ñan ñoo fa ne. ñan. <laughs> dëkk bi dëkk bi neex na. ah mi neex na da nekk tamit. ay hauts fonctionnaires woon ñoom ñëpp léegi soppeeku ay hommes d'affaires. maa la wax lii xëy na taal xam nga ko. ci am xam nga ko. Mhm. Aminata ñaan borom Apix. Apix waaw. ah tamit euh, kii noonu karaw gi weex. Ah, ah. nii. yàlla baax na li ci kanam raw li jot yàlla bëri na sutura. daal nañ aj rek. yàlla bëri na sutura. réew mi kay moo toll fi mu nekk nii fi mu ne moom. koo romb daa mer. ñëpp ngaaj njaabu mer rek. ñëpp ngaaj njaabu ñaabu mer. <laughs> soxna Fane ñaabu <laughs> soxna Fane ñaabu mer <laughs> doo ci wax soxna doo négocier soxna njaabu merum lu mu looy mer yow réew mi neex nii. neex waaw réew mi kay neexul. opposition war a laal 3 milliards.